Omar euh, kooku mooy sëñ Abdou Lahad Sànk président fédération Mastafisul Bichri Bichri waaw Fatihul Bichri ah. Uh-huh. ah sëriñ Abdou Lahad Sànk saa nag kii di wëlëre woo xam ne. xam ne depuis ba may nekk réew Rewmi FM. Hmm. tey la ñuy doog gisee nii ah toog nii ci plateau di déggante rek di waxtaan ci yu bari mais waa ji man sànni xeer la du d'accord ak man mukk ci àddina waaw sëñ Abdou Lahad ñu nuyu la bu baax euh, bàyyi la nga nuyoo. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi sami alim min alseytaan irajim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai walmursalin sayidina wa moolana mohammadin il makin wa ala alihi wa sahabatihi wa taabiina lahum bi ahsani ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu sayidina omar maa ngi lay nuyu nuyu sëriñ sa njogu mbeng maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu soxna Soka ah soxna si Diouf di nuyu seen téléspectateurs yi leen di seetaan yëpp ak téléspectatrices yi. Mhm. ak mboolem kër gi ak mboolem ñi nekk ci kër gi. ci góor ak jigéen. di mhm. leen ndokkeel ci weer wi di leen baalu àq. di baalu àq Sénégal yëpp nag. Mhm. di wax ne incha allah taala fas yéene waxtaan ak yéen ci loo xam ne dafa yitteel xëy na mbirum daara ak it actualité. te ñu te ñu am ci masuliya ñu am ci responsabilité ci ñaari casquette. mooy casquette sëriñ gi ñu doon bokk ci njabootu bi. waaye itam doon ay dongo daara mm-hmm. euh, mu mel na kon am nañ masuliya euh, ci wax dëgg-dëgg ci loo xam ne ak toute responsabilité ngir euh, nit ñi mën cee jariñu rawatina seen plateau bi am na solo ndax ñu amal njariñ réew mi ngeen mm-hmm. yàlla na yàlla xeb dolli jërëjëf euh, sànq loolu dëgg la parce que bari na loo xam ne bu ma paree émission <laughs> bokk na ci ñi may woo krog bi nu mujjee invité rek euh, sëñ bi fi mujj mm-hmm. euh, waaw am na ci loo xam ne d'accord ci woon ak man looloo tax ma wal man la kon ñëwal mm-hmm. dama leen yéen sëriñ ci boo leen toppee mm-hmm. actualité bi est-ce que di ngeen jàngalee te topp daara ji nga ne ma waroo wax loolu fa fan nga tegoon loolu ñu kon na fi wax jasaakumullah xayran sëñ Amar xam nga du question du question dama doon corriger non non non c'est normal débat la ah, léegi Euh, xam nga ñun yàlla dafa ñoo yàlla dafa def euh, ñu am expérience yu bari parce que jàng nañ dañ ñoo jàngaloo ñu xam àddina mën mii di wax ak yow nii yàlla natoo na ma ma xam état xam ni muy fonctionner xam politique doon duma politicien am pédagogie mën a jàngale yàgg ci système éducatif enseignement coranique bi euh, ci biir loolu itam nag suñ daar yi ay pilier leen ci ñi réew mi doxee ñun suñu responsabilité du teg dañuy toog bàyyi environnement bi ak réew mi ni mu bindoo ci wàllu politique ci wàllu lépp lu xew ñu toog bàyyee ko benn minorité ñu koy ñu rajaxe dëkk bi di def n'importe quoi loolu ñun amuñ amuñu responsabilité toog di leen seetaan benn yàlla may nañu ñu am audience ak ak nit ñi ndax man damay seetaan ci yu bari mhm. samay débat yu may def wala ay ay ay chronique yu may def ci tolluwaayu réew mi ak lépp lu mënti xew ci actualité nationale internationale mhm. parce que am naa ci expérience Euh, audience boobu mu am di def ay muxaadaraat dem ci ay muxaadaraat ay conférence ak ay waxtaan yu bari ay milieux yu bari ñu ma fréquenté euh, ay nit di ma toog nit yaakaar ma ci wàllu diine ci wàllu fi ma bokk mooy njabootu sëriñ bi ci deret boole ma ci euh, loolu lépp bu ma ko boolee jaadu na ñu it lii xew ci réew mi ñu ciy wax ñu ciy wax wax ji nag du càggee dañ ciy wax ngir bëgg kuñ ci xam parce que loolu amul benn njëriñ duñu juru juru man lu ñun lu Sëriñ Tuubaa amul loolu luñ koy doye Sëriñ Tuubaa la moom la ñuy tiitaroo li ñuy lim ñu jox doy nañu waaye réew day toll foo xam ne amul kenn ku am sañ-sañu toog di seetaan loolu nag temps boobu ma lay wax ne sëñ daara bi wala sëriñ bi mu mënti doon bu toggee ci plateau di wax ci ay réew mi xalaatam ci loo xam ne day indi day indi day indi ak benn wala ak benn la def naa loolu tekkiwul ne eh, sëñ daara dafa bàyyi daaraam ñu ci war ci plateau yi loolu loolu laal doon laal doon leeral donc temps 30 minutes wala wala 20 minutes bi ngay def ci plateau mënut yàq dara ci li nga war a joxe comme ay dars ay ay ay ay ay cours wala li nga war def comme conférence benn temps la boo xam da nga koy rek ndax man démb bi ma ko waxee dama ko programme dama laaj ñi ma nekkal fii ndax wax leen temps bi ban temps laa fi war a mën a def après ma ñëw bi ma ñëwee euh, loolu rek lu dara ci li ma war a def. Euh, loolu rek loolu rek doon leeral. na la da da cee bokk. da cee bokk environnement la bu ñuy dund boo xam ne defe naa ñun ñëpp war nañoo taxaw sëñ daar yi surtout sëñ daar yi ki nga xam ne day jàngal ki nga xam ne xale bu ndaw lañ koy jox. bu mhm. ñu am juróom-benn at nit dafa foor nit ki noppam ñu jox la ko. kooku kooku ëpp expérience wala gën koo nit yàlla sax nit ki noppam ngay fanaan moom guddeeg bëccëg nekk ak moom ba mu doon magum jëmm nga di ko jàngal kooku sëñ bi da boole kook ay way jurum di ñëw ngay boobu ngay dund noonu ni ngay xamee Sénégal yi ni ngay xamee nit ñi ngay def ay conférence di tudd di dem di tuddi ay doom ak loolu nga di ci dugg responsabilité bi ñu yor kenn da ko yoru sëñ bi retraite responsable boo amul retraite da nga ciy nekk ba kër ngay sàngoo suuf nit ñi wuuti ñi ngay nit ñi wuuti ñi ngay jëflante di wax ak ñoom ñuy ñëw ci yow sëñ bi boo xamul addina boo xamul nit ñi do do kenn du kenn du kenn du xam kenn du xam nit ñi yow sëñ daara bi wala sëriñ bi bu xamul nit bu xamul addina xamul nit ñi kenn du xam nit ñi mhm. parce que ñu ëpp audience keneen ku mënti doon léegi sëñ bi léegi dinañ ci dellu saat mais ñu ñëw mhm. ci daara ji mhm. am na keroog le président de la république dafa wax ñu bari nii peut-être waxul dara ci discours à la nation bi ci 3 avril bi mais li wax ji gàtt gàtt dugal nañ ci daara loolu nag bu joxuloon yitte daara pour man loolu du am maanaam ñëw na ci programme modernisation des daara ma gis nga def ci benn post wala benn waxtaan woo xam ne def nga ko ci. Mhm. dem ba jàpp ni sax daara yi daal mbiru hypocrisie dafa bari ci ni ko état di traité. waaw waaw loolu man dama ci dama ko yàgg a wax ndax it euh, mbir bu fekkee doonoo ci wàllu yaan da nga cee bokk ñu formé la ci tàggal la ci nga xam ko say nawle gënoo leen a jàng ëpp leen xam-xam. dàqu leen a jàngale gënoon doon ay sénégalais waaye dañ la wóolu xam sa compétence sa expérience sag jote sa xarañ sa ñaw sa sa mën leen a jàppale ci ngay nelaw wala ngay wala ngay ñàkk nelaw mm-hmm. lépp lu nekk nga taxaw ci pour jàppale leen ak soxla bu nu mënti doon parce que loolu tax ñu jiital la da nga ciy mën a xam lu bare bare léegi nag lu jëm ci enseignement coranique njàngaleem daara yi diggante internat yeeg daara moderne yeeg li ñuy dund li ci am ci ay musaabaxa ay concours ña fay tukkee ñay jàng ña mën a jàng ña mën a bind lu am solo la lu baax la waaye gis nga teyit ñu bari dañ naan waaw foog faut ngeen nekk benn loolu mun mënta nekk mu mel nga ne parti politique yëpp dañuy dañuy dañoo bëgg ñu nekk benn mënta nekk fédération yi yëpp mënuñoo nekk benn fédération fédération bii naan moo ëmb daara sax ëmb daara yëpp loolu mun mënta nekk amul fenn ku koy wax it xëy da nga koy wax nii rek waaye xam nga loolu mënta nekk yàlla mun yàlla yunt bi nekk na bu jóge fi ñëpp doon ñu ay jullit Mhm. Seexul Xaddim nekk na juuf ñëpp doonuñu ay taalibe murit mhm. Seydi Hadji Malick noonu kon lu parfait amul ku mën a boole ñëpp ñu nekk benn yàlla wàcce ko ci ko suuf mhm. ay contenant am yaa yoxan naa inaa xalaqnaakum min dakar wa unsa wa jaalnaakum soxoban wa qabail li taxaarafu waaye inna akramakum indallaahi atqaakum dama leen def ay peuple def leen ay nation def leen ay xeet def leen waaye ngir ngeen xamante seen biir di tuddante doom di mayante soxna waaye ngir ngeen xamante waaye inna akramakum indallahi atqakum ragal yàlla rek kenn ki gën ci yéen rek mooy ki ki ki ki gën a ragal yàlla léegi nag loolu lépp bu amee dafa am ñoo xam ne porté loolu mooy ñi nga xam ne li Sëñ Tuubaa naan dama seddale dundu nit gi ñaar te ñaar yooyu ñoo ci ëpp solo mooy nit day doon gone gu ndaw wala mu dem ba dem ba doon waxambaane mag moo gis muy def am ñaawteef da koy tari ba muy gone la ko mokkaloon mag moo gis muy def lu baax da koy tari ba muy gone la ko mokkaloon ko Sëñ xale bu ndaw bi lay waxal ak waxambaane bi yaa ayyuha sibyaan laa tastaxilu anil hudaa wa bil ulumi yaa ayyuha sibyaan laa tastaxilu anil hudaa wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil asi wa tilaawa wajtanibu majaalis saqaawa majaalis saqaawa bu kooku mooy mooy ku ndaw ki waxambaane bi mu ne yaa maxsara dubbaan in xiftum xajal faqaddimu taxalluman ala amal mooy waxambaane bi yàlla Sëñ Tuubaa neen dama lay bëgg nga nga sàkku xam-xam te di ko jëfe tey moytu jataay yoo xam ne da lay sànq mooy jataay way texee di boo ko déggee rek mooy jataay yoo xam ne amul bopp amul génn mm-hmm. nga ci parce que gone gu Sëñ Tuubaa da koy day moytuloo gone gu jataay yu mel noonu mm-hmm. waaye na sàkku ji xam-xam mm-hmm. kan kan kan moo la koy jàngal sëñ daara bi sëñ daara bi képp politicien chef de parti bi da la ko jàngal si président de bi da la ko jàngal ministre bi da la ko jàngal juge bi ko jàngal magistrat bi da la ko jàngal ko jàngal général bi dala ko jàngal commandant wala colonel bi dala ko jàngal sëñ daara bi képp moo lay jàngal loolu beneen bi itam mooy mu ne boo àggee ci gone gu ndaw ba dem ci waxambaane nga xam ne foofu moom fa ngay mag ci mag nga jëm loo jàngu ci bi ngay doon gone ak bi ngay bi ngay waxambaane boo doonee boo doonee mag it mënutoo jàng dara mun kon yow waxambaane bi li ma lay dëggal mooy nanga nga sàkku xam-xam te di ko jëfe soo ragalee gàcce ëllëg kan kan kan moo kan moo lay formé ci loolu ku du sëñ daara bi kooku kan moo ko ab responsabilité ci na ci ci société bi kooku nag bu fekkee ne dañoo yor ay daara ñun ñu nga xam dañoo jiital dañu liggéeyloo dañuy ñu dañuy saytu daar yi di leen toppatoo di leen jàppale di xool ci si si maanaam ñi ñi ñi ñuy recruter comme ay jàngalekat lan mooy seen pédagogie ci mën a jàngale wax naa la léegi na la kenn amul sañ-sañu jox la gone nga war koo jàngal alxuraanul karim war koo yar war ko delloo delloo ay mbokkam mën koo jariñ jariñ ay mbokkam mu mën a jariñ boppam jariñ ay mbokkam jariñ réewam ñu mbokk nekk vrai vrai patriote kooku boo ko formé wu ja yow yow mii siñ daara bi ñu jox la ko boo amul pédagogie amoo formation mais dangay ngay da ngay da ngay perte da ngay perte da ngay temps ci moom da ko lor loraale ay waajuram faw yow nga am pédagogie ma jeexal tudd rek sañu sëñ saa faw nga am pédagogie faw nga am waaw faw nga am. sinon yaa ngi ci conférence. absolument <laughs> faw nga am pédagogie mën jàngale. dañu doon ne ci conférence nga def waaw. sëñ bi euh, déglu naa la. Mhm. Euh, déglu naa tamit gis naa tamit ni dëkk bi di fonctionner mhm. jamono ji ñu toll nii bëgg naa ñëw ak yow ci ñaari question bi ci njëkk bëgg naa la laaj kuréel gi nga xamante ni gi nee nañ sàmm nolal mag yi lan moo ciy sa xalaat euh, parce que defe naa ne ay doomu daara yu taxaw jàpp ni ci pénc mi daal dese nañoo respecté li nga xam ni mooy ndonoy mag yi ndax bokk nga ak ñoom gis-gis ci loolu nga xamante ni bii moom lañ kéerloo ñaareel bi man damay wax ni mbaa problème dafa am parce que damay gis ni ñi nga xamante ni ñooy sëriñu daara jàngal nañ ay ndonga daara tey jii ndonga daara yi nekk nañ ci pénc mi maanaam di jubbanti parce que man damay gis ñoo xamante ni bi dañuy dangay gis ni ñii am nañ formation bu baax parce que jàngal nañ leen jàng nañ xam nañ mais day mel ni seen supérieur ñi nga xam ñoo leen jàngal ñi ngi doxalee neneen nu wuuteeg ñoom liñ leen jàngal ba tax na ñoom ñuy taxaw ci pénc mi di daanaka li ma ko mën a waxee di jubbanti ñi nga xamante ni bi ñooy ñenn yi nan nga gisee mbir moomu te par pourtant dañ naan li tax kuréel gi sàmm sàmm ndonoy mag yi jóg dafa mel ni ñii la ñuy bëgg a waxal te ñii fi mu toll nii dañuy gis ni ña ñu jàkkaar lool ñoom ñoo nekk ci eh, leneen noo jë waxi euh, ñaari question yi nga laaj dafa am solo euh, ay dafa am yoo xam ne ay caaxaan la yan doon yan doon la ñuy sàmm ak ñen ñoo koy sàmm lan moo fi yàqu lu ñuy defaraat xam nga kaf yooyu ak xeeti caaxaan yooyu nit da ngay am métier dem liggéey ah wala nga dem jaamu ji yàlla fii lu fi yàq ñu fi lu ñu koy defaraat ay gone yu ndaw wër naa dañuy sàmm dañuy dañuy dañuy sàmm doon mag ñi munu Muntaxa nekk fi yor xalifa seen dara yàqu fa mm-hmm. am ay jëwriñ waaw Sidi Aj Malik ñabatam ne fi taariyee noonu omariyee noonu mm-hmm. lépp lu ñu bind seen maam yi bind ko ñu ay kaggu ñu ñuy denc mm-hmm. seen daara yi ña ngay jàngale kenn wàccuwut aw yoon ruur ci àddina moo ko àddina ñoo ànd kooku responsabilité nit ki lay doon ay xalaatam ak gis-gisam kenn munta àgg fenn fi ci yàq banaan dañuy yàq ndoonu mag ñi ak boo ko yàq fooy jaar ak noo koy yàqee loolu daal damay jàpp ne ay caaxaan na rek ñi koy def it xëy na dañuy politique euh, politique déguisée xam nga yu itam day am di wërwërloog nit ñi di naxanteeg ñoom amuñu dara lu ñuy def loolu wër naan dañuy sàmm noonu mooy dañ leen waroon laaj yan noonu lañ la ñuy sàmm ak leen ko sàmm loo <laughs> d'accord léegi est-ce que par rapport ak saag yi internet léegi léegi beneen bi parce que euh, bi muy ñi nga xamante bi ñooy ndongo daara yi nga xam ne man jàpp naa ni jàngal nañ leen parce que boo leen dégloo ñuy wax euh, tey ji boo duggee ci réseaux sociaux yeeg boo duggee ci kii boo gisee comme tey ñu mel ni ñoom sooy bu nga gis ni euh, bu ñuy wax da ngay xam ni ñii ñu jàng lañ te ñu ñu jàngal lañ nga gis ni par yenn saay euh, dina am ñoo xamante ne bi li sëñ Abdul Aziz si daan wax naan bàyyi leen aaya yi ngeen di euh, jubbanteeg di ko defee di ko defee neneen nga gis ni xale yi taxaw nañ temb bu ñu waxee ñu ne leen lii kat sëñ bi lii la bind fii wala tey lii yonent bi lii la wax wala yàlla lii la wax aaya bi nii la dikkee di jubbanti ñi nga xamante bi ñooy mag ñooñu ci pénc mi. loolu jàpp naa sax moo tax ñu tuddee ko ay saaga ak yu ni mel. xam nga saaga maanaam saaga saaga mag ñi loolu ay terme la yoo xam ne politiciens yi ñoo ko yëkkati. Mhm. pour jëbali si benn clan benn camp. loolu ñu ñëpp xam nañ ko. ban camp mhm. bon dafa am fii benn phénomène bu am ci Sénégal. Mhm. koo xam dafa woote njub ci liñ jàpp mu ñun. dafa woote njub ak diine ak dëggal ak souveraineté. réew moom boppam. mu am système bu yàgg bu fi nekk. maa ngi ñëw. Ah, maa ngi ñëw mu am système bu yàgg bu fi nekk bu suudiwu bu suudiwu mm-hmm. système boobu benn minorité la. Mm-hmm. toog ci benn majorité di leen nappaaje di naan seen deret ji. Mm-hmm. kii ñëw ne loolu dañ koy dañ koy dajjiti man dañ koy buddi. loolu li wala fi naan. ku nopp bu yàgg dégg lu du dëgg bu xëyee dégg dëgg nopp di tàng jëpp. loolu loolu moo indi yii yëpp léegi nag ñi nga xam ne ñoo bëgg a kase loolu. ay slogan la ñuy indi ay termes la ñuy indi. Mm-hmm. façon tour bu ne lañ koy lañ koy tuddee dañ koy tuddee dañuy saaga mag ñi xale dafa am ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu wàll ñu fi wàll si. Mm-hmm. yooyu yëpp ay termes la yoo xam ne benn minute politicien wala benn ñu bokk ci système bi ñoo bëgg kase benn phénomène boo xam ne benn dina kase lan loolu ku ko comprendre da nga fiy nekk di werante ñuy perte sa temps te fekk politique képp la du leneen mais yàlla xam na ne. Euh, kenn ku ci ne boo waxee rek ñu xam fon nga féete mm-hmm. loolu kese la amul leneen fii Sénégal kenn mënu fee nax kenn parce que nit ñi duñu ay dof phénomène boobu nag damaa jàpp ne li ñuy wootee lu am solo la léegi nag ñooñu ngay wax noonu mooy kilifa kilifa yooyu nga xam ne am dañ leen di corriger ak mel noonu. mais ci ñoom la. parce que bu fekkee ne da nga war a wax diine wax wax war a wax aaya ju leer. Hmm. war a wax bayit bu leer nga ne fay di di di wërwërloo aara aaraba jal <laughs> nan nan di araba jal bu di def nii di jéng ko di dëngalu fa nga jëm fa te fekk yow dafa am luy visé la ngay visé daray diine néew ja dara intérêt général néew sa intérêt bopp dong la léeg nga jige jël ay aaya ay bayit di ko wëndeel firi nga jëmale ko fa loolu ñi xam dara te jàng seen diine te nekk am métier di liggéey mais dañ lay corriger léegi bu ñu la corriger nga dama damay saaga loolu amul fenn ay caaxaan rek la du leen <laughs> euh, sëñ Abdou Lahad euh, Mame Mbaye Niang da doon def procès ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko mu gagné mu ni 200 millions mi nga xam ne moom la gagné ki ki nga xam ne moom moo di Ousmane euh, Ousmane Sonko da koy jël jox ko ñi nga xam ne rek moom moo di ñu nekk ci daara yi yow loolu lan nga ko gisee. waaw man de bi ma ko déggee. xam naa ne danañ soos <laughs> bi ma ko <laughs> eh, sëñ bi ma ko déggee soxna Souka bi ma ko déggee dama ne. maam xam nga mbay ña day fo waaye buy fo. waaw day fo day fo. day fooyee boppam di fooyee ñim àndal. di fooyee Sénégal uh-huh. waaye ñun waruñu cee boole uh, ñun du ñu ay moromam yu ñuy taxaw di <laughs> jëlee ay alal jàmbur naan da koy jëlee si mel ni ñun dañoo xiif wala dañoo mar uh-huh. uh, ñun ñun li ñu sëñ Tuubaa defal li ñu yàlla defal moom amu ko tey bu ñu dind woon décret bi ñu ko nomee fan la jëm di toog këram uh-huh. picc du ko gis loolu du am dara peut-être bu ñu xooloon tey jii bi ñu dugg ci gouvernement ak léegi li mu am par rapport ak bi mu fi duggagul tey bu ko yoon toppoon na mu ko war a toppee mais li ëpp ci alalam mën naa dañuy jàpp ne léwut parce que ay ay milliards ku koy yor Euh, wala ay millions millions yu bari bu ñu comparé sa salaire ak li nga am par rapport waxuma ne nag li mu yor daal lew wala lewut waxee ma foofu. Mhm. waaye daal buy politique. wala muy def ay règlement de compte. Mhm. ànd kook ay lu ma wax état parce que état lu lu lu lu particulier la. Mhm. mais ay politiciens euh, ay ñu bokkal coalition bu ñuy caaxaan wala ñuy foyee Sénégal nañ ko yemale seen biir. maanaam génn ci sëriñ daar yi ak kilifa diin yi ak borom xam-xam yi. parce ñun am nañ beneen mission bu bëgg na seen kaf yooyu ñu nekkee. ñu nekkoon ci yooyu alal juju kan moo na ko ñun dañ koo soxla. ak moom alal ji ndax kan mën na ko dana jot mais yéen nag fi mu toll nii da ngeen a diviser fi mu toll nii bu ko bu mambay toogoon fee yor saak bi ne seriñ daara yi ñëw leen am na ñuy dem <laughs> ñëpp mën nañoo bañ a dem waaye dina am ñoo xamante ni danañ loolu moom moo ko ñoo <laughs> waaw loolu loolu saa moo ko àddina ndax nit ku ne ak la la tax a jóg gis nga foo gis nit ku baax safaan baa ngi ci wetam nit ku baax koo gis rek nit ku safaan baa ci wetam ambition yi nekkul benn gis-gis yi nekkul benn lu lu gën a yées loolu sax su amoon dana am ñu ko porté nee naa fii ci senegal sunu sunu sunu trajectoire réew mi ni mu bindoo suñu aada ak suñu cosaan ni mu bindoo askan yi man mi nga xam ne yàlla def na man am naa culture xam tuuti ci histoire du Sénégal loo gis nit di ko def rek da koo nàmp da ko nàmp nangoo dafa am ñoo dafa am ñoo ne ci àddina dañuy toppee ba ilaa yemi diin dañ ko nàmp nàmp Ah, am na ñoo xam ne du toppi mukk parce que dañ koo nàmp loolu il faut ñu xam ko kenn ku ci ne yaay xool fan nga ci bokk loolu kese yaay xool yaay xool yaay natt fan nga ci féete ku nangu ñu nodd la ah. loolu da nga ko da nga koo nàmp amul problème ku bañ ñu nodd la da nga koo nàmp loolu rek la te boo xoolee li xew senegal ñu ëpp ci Sénégal yi mm. nanguñu ko leen not mais ki leen ki bëgg a not wuru leen a not tubaab yi bi ñu fiy nekk notuñu woon bon li ñu wax li ñu wax euh, parce que ñun defe naa Sénégal mi ngi soog am président de la République ci ci ci ci Abdoulaye Wade ak Macky Sall mais France tubaab yi 60 ñoo fi teg Senghor. waaw Abdou Diouf décret moo ko fi teg 1981. kon Abdoulaye Wade la ñu fal fii li xew ci ay diggante entre 60 euh, ba ba 81 élection yooyu xam nga élection yoo xam ne <laughs> la yàlla xam daan ñu jëru nekk ñu di détail ay du élection yi dara parce que amuñu amul nit ñi amuñu liberté. xamuñ sax exactement naka la ñuy wootee ba ci chef de quartier yi sax da fi daan dem sànni sa xob ak nu bon loolu du démocratie mm-hmm. ñu ñëw ba 81 ba ba 2000 la daan xew ci élection yi gis nga ko boobu maturité bi Sénégal yi am ak responsabilité bi ñu am ak maanaam culture bi ñu am ak ni ñu jàngee ni ñu xamee àddina mm-hmm. loolu taxaw temm di rêve di rêve loo xam ne moom la àddina moom dëkk yi ñu wër sax loolu la ñuy rêve mooy moom seen bopp am seen alal mm-hmm. am seen souveraineté fii Sénégal nga gis ko am 40 ans 50 ans du samp kër du samp kër 40 ans 50 ans du samp kër yaakaaru ko waaw néeg lañu samp yaakaaru ko fenn te yaakaaru dafa garaaw 50 ans mhm. loolu faute la suñu gouvernement yi la kooku non ñoom ñoom ñoom ñooy ah, seen responsable sax amul keneen parce que ñun ñi ay civil lan mhm. ay ay ay citoyen lañ gouverner woon mais bu ñu bu ñu ne bu ñu nekk ci démocratie démocratie bi ak république nekkuñ ci nekkuñ ci royaume nekkuñ ci dictature démocratie ci lañ nekk nekk ci état de droit ak république hmm. liñ mën rek ay élection jot ñu ñu ne nii lañ koy tëralee ñu bokk bokk Sénégal yi tànn ku ne wax li nga li ngay def loolu mooy démocratie. buñ la buñ la bàyyee dëkk bi nii muy wasaaroo. waaw léegi xam nga moo tax kër jafe. sànq dafa wax lu am solo muy politique déguisée bi mu wax foofu noonu parce que waa ci oustaz yi te parce fois tamit di nga gis oustaz yoo xam ne ñu ngi politique mais duñ nañ ko ci li nga xam ne yàlla wax na ko ci ci ci ci ci ci téere maanaam nga gis morom sa morom julit di xoqatal sa morom julit nga gis ki nga xam ne moom la ñu xoqatal au lieu nga ànd ak moom mais nga fa ànd ak ki nga xam ne mooy jëf-jëf ju bon jooju maanaam te di nga gis euh, euh, sëriñ yoo xam ne au lieu que ñu ànd ak Sonko mais dañuy ànd ak Macky Sall yaa ngi comprendre wax ji mais loolu la moo koy parce que ñu ngi leen jox yenn enveloppe yoo xam ne ci suuf ñu ngi koy jël est-ce que tamit nekk loolu moo tax ndaw yi jóg tey pour rectifier yenn sëriñ yi ah bon xam naa daal euh, li ma mën a wax daal mooy man du ma nekk duma wax ci xelum kenn waaye nag comme que nit da wax loo xam ak loola leer quel soit responsabilité boo bi nga yor kii ànd ak Macky Sall ki ànd ak Ousmane Sonko am na ci droit ñun ñëpp ay citoyen lañ li am solo mooy li ñu liyee mooy république moo ñu liyee ay règle ak ay loi ak respect réew la moo xam république ni muy doxee amul kenn ko naan maa la moom kilifteef nag mën naa am mais ci kilifteef dañ ko koo réglementé kenn amul sañ-sañu di exercer ay violence sa kaw moroom moo xam ab sëriñ nga moo xam ab politicien nga respect képp man damay wax ne institution yii nga xam ne ñëpp ñu ngi naan dañoo war a respecté loolu ay loolu ay terme la ay terme la yu ñu utiliser pour bëgg a déstabiliser benn benn benn benn majorité ngir bëgg mooy li may wax rek ci système bi terme yi ñuy utiliser di ko naxee nit ñi nañu respecté institution yi lu wér la si ab Lahad dafa waxoon sama turandoo bu baax wax dafa waxoon Abdou Diouf ne ko bu la Sénégalais yi benn war nga leen sant fukk loo doon la ko def parce que institution yi ñun ñoom ñoom bàyyiwuñu fi ñun ñun ñoo leen fa bàyyi <laughs> loolu il faut nit ñi xam ko. c'est-à-dire que il faut ñu xam ne institution yi ñun ñoo leen fa bàyyi waaye ñoom bàyyiwuñu fi ñun institution yi ñun ñoo leen dundal ñoom dundaluñu respect bi ñun ñëpp ñoo ko ku ne da ko war a jox sa morom mais ñun bu leen ko joxee benn ñoom war nañu ko jox téeméeri yoon seen dàll yi ñu sol bu dee policiers yi tenue yi ñu sol magistrats yi ñoo dundal généraux yi ñoo leen dundal li ñu doon défilé yi li ñu wanee noonu doon ko wanee ne wane ay arme ay arme lourd ay ay corps d'élite ay commando bañ ba ñëpp d'accord ne am nañ am nañ sécurité xëy na sécurité doy États-Unis sax amul sécurité bu doy mais ci waxin amul kenn benn état lu mu organiser wu organiser lu mu am am doole bu am arme bu doy par rapport ak peuple am wala arme bu mën a xeex ak peuple am parce que nit dafa diis dafa fort arme ay matériel dong la oto yi ay pono ko weñ dong la nit dafa sacré dafa fort munoo munoo am arme boo leen mën a réprimer munoo ko am munoo ko am moom kay da ngay ñëpp dañuy respecter loi ak règle ñu ñu jox ñu jox nit ñi cër nit ñi jox leen cër loolu képp mooy fi mën a am leneen mën a fi am. léegi nag soxna si comme li nga wax ni ma jeexal ci loolu. Hmm. mooy sëriñ sëriñ si. waaw waaw waaw loolu sax. ñu gis dëgg dëpp dëgg gi. waaw absolument loolu loolu mën man mën naa am xam nga loolu du ma yegg foofu man hmm. euh, ndax it. Euh, ku dem ànd ak Macky Sall la ñu jox la alal kooku sa diggante ak yàlla la sa diggante ak moom la hmm. yaa xam lu ngeen seq la waaye nit ki tam am na droit ànd ak Ousmane Sonko. Ousmane sonk benn benn benn benn benn benn benn faute wala benn erreur rek la def muy bëgg Sénégal mm-hmm. man bokk ma man bokk ma ci parti ma waxin la man bokk ma ci parti bokk ma ci coalition xalaatuma dem ci ay affaire mitin wala ay coalition malgré am naa ñu ma yàlla booleel kilifa laa ci réew mi am naa responsabilité am na ñu ma déggal waaye du tey itam xolo xàqan wala kaanam nit da ngay wax dëgg rek waaye bu fekkee dañuy waxal yàlla rek yàlla rek yàlla rek wax dëgg yàlla bu bu ñu dof dof loo ak di tay taylu ba ñu ba ñu ba ñu sànq waa ji danañu coûter cher trop waaw dana dana métti lool trop ci senegal wallaahi lancim si ñii danañ konni di ñu not di ñu dóor di wëlbati te duñ ci man dara xam nga xam nga xam nga lu ñu koy jàpp wër-wërloo bi tere nañ ko mandat dépôt euh, contrôle judiciaire noonu lañ koy jàpp amuñu beneen liggéey bu dul boobu jamono yi ñuy défilé fee di wane ay armes yu luur jamono yooyu kilo sukar mi ngi jël téeméeri dërëm ak juróom benn fukk wallahi alazim moom laa ko koy jëndee Touba 800 francs moom laa koy jëndee buy bi ñuy waaj nga yàlla yàlla xam na ko kilo bi 1000 francs ba 2000. xoolal fi may xoolal <laughs> fi may eh. fi may waxee yow nii Seydina Omar Seydina fi may waxee yow nii fukki daara ak benn. yoo xam ne ñu ngi may solli yoo xam ne ñu ngi may sollicité. situation yi ñu dund rus naa ko wax fii. wallaahi. barke alxuraan ah, karim kon yow mi mbaam mbaam doo ko moom daa da da day waaw waaw ndeysaan euh, moo xam nga yooyu moom ñun nekkoon ci yooyu parce que ñeneen day fo te ñun fawuñu euh. euh, day caaxaan te ñun caaxaan li am solo rek mooy président de la république li ma koy fi may waxee jeexale ci sa kii rek mooy di wax ne nañu am responsabilité mm. di di sàkku ci moom li mu waxanteeg sëñ daara yi discours boobu mu def na ba tudd daara yi loolu dama jàpp na sax xëy na dañu koy da koy wax nii rek wane ne tudd naa leen waaw dañuy nax nu waaye xam nga ñun weesu nañu foofu parce que Macky Sall mënuñoo nax gënuñoo jàng gënuñoo gën ay sénégalais gënuñu doon ay citoyen alors président la rek dañ ko far rek pour di ko liggéeyloo ci ci ñaari mandat bu jeexee mu dem keneen nee ñëw li am solo rek li ma koy ñaax rek mooy na am yërmande ci mun a fexe fexe fexe ba des fii ba abadan na yërëm sénégalais yi dimbale daara yi taxaw leen li mu waxante ak ñoom mu def ko jaaree ko ci ministère de l' éducation nationale ak inspection des daara parce que nag fekk dañu waxal yàlla inspection de daara kuréelu direction bu am solo la mais ñoom yiliful seen bopp ci ministère la ñu bootu ministère bi euh, dafa am budget il faut que président jàppale direction boobu su fee moom itam mu mën a lëkkale daara yëpp ak fédération yëpp parce que mbir bu lu ñëpp bokk da koy waxtaanee te loolu loolu mooy seen mas loolu mooy seen raison nañ ko def mm-hmm. su fee jàmm daal di am ñi ñu ñuy jàpp ci prison yi mm-hmm. ñu tëj leen ci ci ay caaxaan wala politique France ñoo ñu gën a doon puissance ci démocratie ci économie ci sécurité ci lépp mais la fa bu yàggu jëyee ji fa am yëpp malgré la taal ci ay ordre de gendarmerie mm-hmm. mais magistrat yi dañoo libéré ñëpp presque mais li ñu jàpp fii lan la leen jàppee ay manifestation non mm-hmm. day maa ngi leen di ñaan en tant que kilifa diine en tant que ku bokk ci réew mi di kilifa maa ngi ñaan président euh, ak ñi mu àndal na Pape Ndiaye mm-hmm. Pape Ndiaye nit wax na lu gën a garaaw lu gën a jëyee ju gën a rëy li mu def ñi ngi wëndeelu ci dexi seen soxla Pape Ndiaye en tant que ab nga tëj ko ci ay ay caaxaan yoo xam ne tëj gi sax maanaam def ko def ko mandat def rek bàyyi ko noonu yooyu du dara manifestation yi quatre cent cinq cent personnes yi tey yëpp su defee lu loolu ñu ñu ñu ñu libéré leen waaw ah, gisaakumulaa xeyran loolu laa ne woon danaa leen ko bëggoon nañ gën a wéyal bee koor gi su <laughs> wax bi dafa xaw wàññeeku mais di la gërëm bu baax a baax euh, di am mbégte di la bàyyi rek nga tàggatu waaw di leen gërëm nag ndax yéen ñu am solo ngeen xëy na sama temps du ma may yu bari léeg-léeg ma cof rek surtout saa njóogu moom dama koy siifur eh, waaw waaw sa xam kuy dox ci agenda hmm. du du du kuy dox ci agenda du du am temps yéen di siifur yéen nii léeg-léeg rek mu rëcc rek saa moom dama yàlla da def def dama koy seetaan parce que xam nga nit nit léeg-léeg nga firi waaw ah, Cheikh Abdoul Ahad man man man sëñ Abdoul Khadir moom mu tuddee Cheikh Abdoul Ahad moom moom mu tuddee Cheikh Abdoul Ahad feral maam Sow hmm. Euh, sëñ Abdul Ahad sëñ Abdul sëñ Abdul Xaadir moom mu tuddee sëñ Abdul Ahad Mbakke euh, waaye waaye di leen ñaanal yàlla tabaraka wa taala kër yi jur ay kër yu bari waaye ngeen muurloo ko te mu barkeel lu am solo la di ñaanal sëñ li Lamine Niass yàlla gën a yokk ay leeram kër gi yàlla gën ko sàmm gën leen musal làq leen fu yàq yeggut jasakumulaa xeyran asalaamaaleykum jërëjëf sëriñ Abdou Lahad euh, Sànqe jógee ba Touba nuyu ñu waa Touba bu baax am mbégte nuyu ñu tamit Dàmbooj ah, ah wëlëre Dàmbooj la moom aussi jàngalekat la waaw absolument ngeen bàyyi may ma une une seconde rek mm. une seconde Dàmbooj ku ku am njariñ la euh, Pape Alé Niang itam ñu ngi koy ñaanal ndax kuy taxawu daara yi la jërëjëf jasakumulaa xeyran jërëjëf mi ngi noonu kon su kaa kan kaa jërëjëf